383 par an. d'accord ndax mën na ko tënk ci wolof. Oh, waaw xam naa balaa euh, may tontu ngeen may ma rek ñu santaat sunu borom. ci tawfiq bi defal tey. ci journée wu parrainage bi. journée wu contrôle parrainage bi. waaye balaa may tàmbali may delloo njukkal euh, ki nga xamante ni mooy président wu parti moom Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha nga xamante ni guddeeg bëccëg. su baax Euh, mbébétam yëpp mooy ñaari mbir fexe ba doomu aadama yi nu ñuy fexe ba nite ak ngi am ci réew mi nga xamante ni sénégalais bu mu ci mënti doon ak foo mënti yeewoo ci miim réew kenn du la gis jéppi la kenn du la xool xeeb la projet boobu ki ko porté mooy sunu président Aliou du Dia nga xamante ni moom lañu am yaqin ak yaakaar ni mën na ko mottali ñu ànd taxaw temm nekk ca gannaawam yéene ko ndam ndax ndamam ndamu sénégalais yi la bu ko defee ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp di sénégalais yi nga xamante ni ñoo ñu wóolu ba jox ñu seen i carte électeur ni dañuy pare ne ñu jaajëfal leen ndax gis nañu seen taxawaay waaye ñu fàttali leen nii mbir yi day doog a tàmbali jeexagul ñu ñan leen ñu gën a taxaw ba ci tàkkusaanu 25 février bu ñu waxee ni Aliou Mamadou Dia incha allah moom moo gagné élection présidentielle yi bu boobaal la chantier yi di doog a tàmbali. mbir yi dina soppeeku bu baax a baax ci réew mi mbir yi li war soppeeku bari na te incha allah ñun ñoo leen ko wax dana soppeeku. jërëjëf parrainage yi jàll nañ ko alhamdulilahi rabil alamin lañ ñu laajoon yëpp indi nañ ko joxe nañ ko càmbar nañ ko maa ngi ànd ak ku ñuy wax Babacar moom mi nga xamante ni moom mooy sunu ingénieur informatique moom euh, moo ñu am foofu bu taxawaay bu am solo moom itam te 44000 parrains la ñuy laajte li ci gën a yées yàlla dogal na ñun ba ñuy déposé 53000 58000 521 parrains la ñu déposé. Mhm. donc bañ ko càmbaree am yoo nga xamante ni génne nañ ko ci ñu dem ba mujjee 40 ñaata. 47 383 par an donc mu nekk la nga xamante ni victoire la mu nekk euh, feu vert pour ñun ñu mën tambali tàmbali suñu campagne incha allah bu da légal bi jotee loolu ñu amoon lu ñu leen di jox comme xibaar. fii léegi am mandataires yi nga xam ne jot nañu génn te ñu recalé li nga xam ne mooy seen candidat candidat yi wax nañu ni gis nañu ay jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi ci euh, fichier bi. Hum. ndax euh, yenn c'était le cas wala. waaw xam nga fichier bi dafa nekk lu nga xamante ni ken amuko danaka ñom daanaka ñoo seen fichier di contrôler ku ci nek dañ lay wax rek nga uti ji say parents bo ñëwé ñom ñu contrôler sur la base du fichier général des électeurs qu'il dispose mm-hmm. donc yow bo ñëwé naturellement di nga am ay électeurs yo nga Ne ni nekkuñu ci fichier wala ay carte d'identité yo nga euh, élément yi ci nek correspondrul ak ñom élément yi ko nek ci seen fichier général des électeurs yooyu rek lañuy wax ni bo ci amé ay parrain ci bok dañ la koy dindil té lolu foog naa ne dal na candidat yépp ba ci ñun ñi wax yeen donté jall nañu ko dal nañu amna ci ay parrain yo xamné dañ ñu ko bañal parce que ñoñu seen ay coordonnées correspondrul ak fichier général des électeurs. donc mun nañ jàpp ni seen candidat moo 5e, ci li nga xam ne jot nañ ko valider tey. waaw euh, jàpp ma nag ordre ni ngeen koy kante daal mën nañ wax rek ni tey yeneen yeneen deuxième mën nañ wax ni daal Aliou Mamadou Dia jàll na parrainage yi te incha allah euh, waaw waaw xam nga liiraguñu PV bi moo tax yooyu yëpp duma la ko duma la ci mën a tontu mhm. bu ko defee rek xam naa ni secretaire général muy Cheikh Ahmed Tidiane Youm wala euh, président Aliou Mamadou Dia dina ci ñëwaat def déclaration bu officielle nga xamante ni yooyu yi ngeen di laaj yëpp moom dina ci dellu siwaat jërëjëf maa ngi tudd Boubacar Ndiour mandataire national du parti de l'unité du rassemblement jërëjëf